ñu bëgg askan Sénégal bi yëpp xam na ni carrément ñun li ñuy dund fële na la ci biir Eiffage Marine dafa mel ni comme torture donc ñoo ngi ñuy traité comme ni ñuy traité ay esclave comme ni ñu doon traité suñuy maam mbuumu jàmm boobu la ñu wax ni dafa bu dañoo bëgg mu dog ñu fay ñu suñu fayoor te tamit ñu jël en charge ñu nga xamante ne ñoom ñëpp dañ fa jot a gaañu mu doon bañ mu doon mu bañ a nekk ay waxu kesaw kesaw dañ leen waxoon ni ñu amoon ay bus transport yi nga xam ne moo ñuy transporter suñu suñu suñu suñu kër yi ba fu ñuy liggéeyee ñoom ñu bañ loolu ñoom ñu préféré génn xaalis bu nga xamante ne ay millions la daf ko ay chapiteaux chapiteaux yi nga xam ne dañu ko defaral foofu noonu ci biir pôle te képp xam na ni biir pôle foofu mu nekk noonu euh, condition yi fa nekk dafa métti parce que TBS moo ngi foofu noonu donc terminal vraquier du Sénégal te ñoom ay produits chimique kese la ñuy liggéeyee bu naaj bi tàngee sax da ngeen gis produits chimique yi day tàkk nga jël ay nit di leen di loo foofu train bi dafa baagante guddeeg bëccëg ba nit ñi mënuñu am nelaw condition climatique yi fa nekk ak condition d'hygiène yi fa nekk benn baaxu ci ndaxte am na ci ñoo xam ne dañoo feebar ay feebaru poumon la am ak respiratoire heure bu ñu demee ci médecin bi ñu leen di wax ni ah yéen fi ngeen liggéey xanaa dafa ñu ne leen waaw bu ko defee ñu nekk di dem ay rendez-vous di dem di di dem di bëgg wax ni day encore dañuy nekk ci biir nga feebar boo feebaree ba pare nga war dem infirmerie infirmerie lay non jël jël en charge il faut nga am bon ñu bon il faut nga dem autorité ñu bindal leen bon malade bi dem di pour mën malgré que

bu ko defee ñoom tamit ñu dox si tànku jàmm. lii du dëgg du yoon nangu nekk suñu réew Sénégal doomu Sénégal ñu koy buntu xatal ci réewam kan moo def doxandem kan moo def ay doomu France te du Sénégal muy muy jaratul dara ana président Macky ana ministre du travail xanaa inspection du travail amul fii jël ay père mère soutien de famille war a joxe dépenses, fay luwaas fay courant fay ndox njaboot gi bu feebaree ñu faj ko fay njàng fay paas jàppale say waajur ak say rak ngay liggéey quatre heures de temps heure supplémentaire par jour kenn du fay ndax lan président Macky Lou France wax chef d'entreprise française wax entreprise française def baax président Macky Sall nee na waaw comprendre na xawma signal jeunesse bi dafa am problème emploi mais ñun waa Frappe li ñuy wax mooy problème emploi fi muy commencé mooy emploi yi nga yore balaa ngaa emploi yi nga a créer yow emploi yi nga yore naka nga ku mënul yoree xaw ma ngunu ginaar nu muy nu muy yoree ab réew ku mënul sàmm ñoŋal liggéey yi nekk Eiffage Marine liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen entreprise yi mais naka ngay créer wee emploi donc président Macky Sall fi ñu koy njëkk interpellé mooy déjà liggéey yi nga xam ne moo am nañu fexe ba entreprise yi di respecter ak ak yelleefu liggéeykat nañu fexe ba liggéey yi nga xam ne moo xas ba am mu nekk des emplois décents ñu lay fay payor bu mot ci waxtu di respecter sa àq ak yelef di respecter le droit syndical lii nak dina jeex bu dee première vague bi ñuy wax ci manifestation yi affaire Sonko moo ko déclenché ah bu ñu moytuwulee deuxième vague bi situation liggéeykat yi moo ko nar a déclenché ndaxte duñ ci bañ dara moo tax ñun waa frappe ñu yëgal opinion publique nationale ne leen fii ak ay fan peut-être samedi dinañ organiser manifestation ànd ak ñoom liggéeykatu Eiffage ci mbeddu Dakar yi egg buntu port bu Dakar ngir ñu xamal sénégalais yi xamal liggéeykatu port xamal tamit opinion publique française ne lii mooy taxawaayu état Sénégal mu ngi ne muut mu pat ci nekkin métit naxaru liggéeykatu euh, Eiffage Marine